dégg mu ne ko asalu ko maa ngi lay ñaan billazi ci yàlla mi nga xam ne en tant que jox na la al law na couleur alxasana bu rafet wal jilda ak der alxasana bu rafet wal maala mu jox la alal maa ngi lay ñaan bayiran benn gërëm goo xam ne ataballaxu danaa jottalikoo bii ci moom fii safari sama tukki bi mu ñëw ci ku yore jàngoro yi baras ba moom malaaka bi ñëw ci waa ji mel ni waa ji meloon feebar bi waa ji amewoon mu am ko ne ko benn góor goo xam ne miskin la amatul pexe ci tukkeem mi dara mënu ko heggali fa mu jëm lu mooy yàlla ak yow maa ngi lay ñaan nag ci barke yàlla mi la jox couleur bu rafet bi ak der bu rafet bi jox la alal may ma rek benn gërëm koo xam ne dinaa ci mën a heggalee sama tukki mi te waa ji am na couleur gërëm ko tontu faqaala mu ne ko alxuquuqu àq yi kasiratun dafa bëri a fere yi daa bëri lii nag li ñu leen di jàngal mooy sa alal nu mu toll noonu la sa fere di toll bu fekkee da dem ba amutoo benn fere pour door a tabe yow doo tabe ba ni ngay dee yow yow miskin bu amutoon dara boole ci feebar yàlla jox la nag kurak gërëm nga naan samay feree bëri mënu maa maye benn gërëm kooku kañ lay tabe moo tax bu leen yaakaar ne bu ngeen amee alal ju bëri seen i fere day wàññeeku ni la yàlla mayee fere yi toll noonu la lay jox waaye bu mu la tee tabe ndax day yokk sa alal du ko wàññi fa xaala ku yoroon jàngoro baski ne ko alxuquuqu àq yi kasiratun dafa bëri maanaam fer yi dafa bëri amul ma la jox fa xaala malaaka bi ne ko kaan nii dafa mel ni man aarifu ko xam naa la de alam takun xanaa nekkoon abrasa ku yore jàngoro baras yaqzuru ko mu seexlu la yaqzuru mu seexlu la annaasu nit ñi xanaa du yaay waa feebaroon ñëpp seexlu la faqiran nga ñàkk faataaka mu may la allah yàlla xanaa du yaay waa ji jàngoroy baras ñëpp di la seexlu nga ñàkk amoo dara yàlla mu la may muy fen di rëylu fa qaala mu ne innama warisu naka doon naa haasal maala alal ji kaabiran jëlee ko ci mag an kaabiran mu jëlee ko ci mag alal ji samay maam laa ko doon ponkal ñun ay ponkal lañ sama maam ponkal loon ci laa jëlee alal kooku ci la jëlee alal ma ngay fen nag di rëylu ana lu ko fi jar malaaka bi nag ñaanal ko yàlla safaan te xam nga day delluwaat ci jàngoro fa qaala malaaka bi ne in kunta boo nekkee kaasiban di aji fen hmm. fa sa yaraka yàlla na la mujjuroo allahu yàlla ilaa ma kunta ci ni nga meroon bu dee waxoo dëgg yàlla nga delluwaat ci melokaan bu bon bi nga meloon daal di dem bàyyi loo ci léegi dafay delluwaat ci ñàkk ga ak jàngoro yi barasta moo tax bu la yàlla may xewal deel sant yàlla te bañ a bew hmm. bañ di surtout di bàkkoo lu amut waataa malaaka bi dikkal nag al aqra ku yore jàngoro yi lel ja ki nga xam ne bopp bi dafa lel fii surati ci melom waxee ati ak façon malaaka bi daal di ñëw ci ki nga xam ne dafa leloon moom mi yore bopp bu lel comme waaja fa qaala malaaka bi ne ko fa qaala malaaka bi wax la wu ñeen waaji misla maa qaala comme nu mu wax li haada ñeen ku yore jàngoro yi baras ne ko gu ñàkk amatul pexe ci tukkeem dara mënu ko xeggali lu mooy yàlla ak yow maa ngi lay ñaan ci yàlla mi la jox karaw gu rafet may la alal dimbale ma jox ma may ma benn nag bu ma xeggalee sama tukki warada mu tontu xale ci malaaka bi misla maa radda comme mu tontu wax malaaka bi ne ko fere yi daa bëri amul mu la jox xoolal rek gis nga ko nay ay fere lay layee te fere yi kenn mënu see mucc fa qaala malaaka bi ne ko xaalu yow yaa doon ku yoroon jàngoro yi leel ga nit ñi di la seexlu nga ñàkk lool yàlla mujj la jox mu ne ko déer man sama alal ci ponk ay ponkal laa ko doon doo fa xaalu malaaka ne ko in kunta boo nekkee kaasiban daa ji fen yarak yàlla la mujjal allah yàlla ilaa maa kunta ci nekkoon moom mi delluwaat si ñàkkam nga ak leeram nga waata maa gumba ba nag moo ci ëpp sens fi suurat yi ci meloom waxee ati ak façon mu ñëw malaaka bi ñëw mel ni ku gumba mel ni gumba bi meloon fa xaw mu ne ko rajulun góor la miskin bu ñàkk wabnu sabilin doomi yoon la ah damay tukki in xataa dog na bii ci man al xibaaru pexe yi fii safari sama tukki fala balaaxa di rek xegg lii ñeel ma al yawma tey illaa suma bi ko yaakaar si sama tukki mi asaluka maa ngi lay ñaan billazi ci yàlla mi nga xam ne radda delloo na alayka ci yow basaraka sa gis gi maa ngi lay ñaan saatan benn gàtt a ballaxu danaa jottalikoo bi yaa ci moom fii safari sama tukki mi may ma rek benn gàtt ma dimbandikoo ko sama tukki mi fa xaal gumba bi ne ko xat kuntu nekkoon naa ama di gumba fa radda mu delloo allahu yàlla ilay jëm si man basari sama gis gi hmm. fa xus jëlal maa siita la neex hmm. wa dax bàyyil ma siita lu sax am benn gàtt def na ko sama gàtt yaa ngi nii jëlal lu neex nga yóbbu lu neex neexit ba ko fi fa wallahi maa ngi gën ci yàlla maa ajhadu ko duma ma la sonal al yawma tey bi shay'in ci dara axastahu jël nga ko lillaahi ngir yàlla azza na wajëra ta màgg lépp loo jël sama alal du ma la sonal na la delloo ma ko du ma fa nekk di la sonal naan la eh lii de bëri delloo ma lu la neex jëlal sama gàtt yaa ngi mm-hmm. ndax gumba laa woon yàlla dindil ma gumba gi may ma lii kon damay sant yàlla gis nga xaalu gumba bi na ci ñëpp roy moom laa déggum benn président di wax mu ne man kaw ga laa dëkk sama baay amu woon dara samay waajur amu dara ma ñëw fii di góor góorgóorlu ba yàlla dimbali ma fal ma ma nekk président kon yàlla di seelatu ma dara du fi nekk di xëccoo nguur su wàcc jotee damay wàcc continuer des di liggéeyal yàlla ci jaamam yi di leen dimbali sama alal waaye bëri koo xam ni baayam yoru woon dara ay waajuram yoroo woon dara moom it xamu woon dara nekku woon ku kenn xam yàlla fal ko dimbale ko ba def ko bo président muy njiitam réew may ko alal ju jeex mu fettarlu ca nguur ga mu jaral ko rey ay bakkan jaral ko xeex jaral ko tëj ay doomu aadama ngir lan ngir yàgg ca nguur ak xëccoo pourtant yàlla may na ko lépp deseelatu ko dara li ko waroon rek mooy mu yërëm jaamu yàlla yi ñi ko fal buñ ko bëggatul mu wàcc parce que yonent bi sallallahu dafa wax ne yàlla du nangu jaamu yàlla koo xam ne nii am amma qawman wa hum lahu kaarihuun yaa ngi jiite ay nit lañ laa bañ gis nga boo jiitee bañ ne bëggatuñ la jiite wàccal may keneen mu jiit mooy maanut waaye nangu di nekk ci kanam di jiite ñu la bëggut ñu nga jiite leen bàyyi leen ñu beneen jiit mais buñ ne fipp nag force tey maa ni waaye it bëri na koo xam ne ni démb ku ñàkk la ku torox la xoon ku amutoon dara yàlla may ko xaalis mu beew rëy ñam xamoon démb sax bu leen rombee dootu leen nuyooti dafay rus a présenté sax ay mbokkam léegi wut yeneen xarit yu bees ak yeneen i borom doole beew lool nag musiba gu nekk mu dugg ci te pourtant kat ci ñàkk gu métti la nekkoon kon yow mi nga xam ne sa dund métti woon na loolu dem yoroo woon dara ci sutura yàlla ak ci mbaaxam mu dimbale la du sa góorgóorlu parce que noo mel ku lu nekk rek am na ku la ca raw te melut ni yow bu dee xam-xam nga ngay bàkkoo bëri na ku la ëpp xam-xam te yàlla may mayut ko mhm. bu dee askan ngay bàkkoo bëri ku la gën a rafet askan wala ku mel ni yow te li yàlla may mayit boo ko mayit ko ko bu dee xel la am na ku la ëpp xel te li la yàlla may mayit ko ko bu dee relation la am na ñu ne ko yàlla may mayit ko ko kon dee leen sant yàlla ci li leen yàlla jox comme gumba bi waaye bu leen daw voilà man kat yow sëñ bi kat fer yi dafa bëri ah wala nit ñi de ah nit ñi boo ñàkkee kenn du la dimbal lañ lay seetaan toroxal la kon mel ni mu amee du mu dimbale kenn xam nga doomu aadama ni mu war a meloo mooy coono bi nga jaar ba yegg fi nga yegg fexeel bu fa nit ñi jaar loolu mooy ndamul doomu aadama man de dem dañ ma doon dama daan jug ñi di ma bës daam ñi ma mënoon dimbali léegi sama lépp baax ñu seetaan ma yow nga màgg fekk ku aw sa yoon nga génne ko ci loolu yow dimbale ko moom mu mucc si ñi di ko bës ak muy jéem muy të nga dimbale ko gaawal yoonam loolu mooy ndam ah waaye man damaa sonnoon kon naa ko ba mu sonn ay waay doo sant hmm? kon bu ngeen amee dee leen dimbale nit ñi dee leen seen démb bu fekkee sa démb da ngaa judd ci teraanga nga fàttaliku say baay seen démb wala say maam seen démb dana ci am ñoo xam ne sa famille amu ñoon tus kon doona woon dara bu yàlla dimbalee na nga sant yàlla waaye bul bew loolu la gumba bi wone mu ne man damaa gumba woon yàlla delloo ma samay bët kon duma ma xëccoo alal ji du ma nay si dimbale doomu aadama yi dangaa ñàkk gumba comme man sama alal la ngi jëlal lu la neex ba fi lu la neex ndax démb moom soxla woon na ku ko defal lii gisu ko kon nag tey moom bu ko mën a defal nii da koy defal lii mooy mbaax mbaax ngeen may wax waaye bu leen yàlla teral ba pare ngeen tooxal jaamam yi fa wallaahi maa ngi ci yàlla maa ajxadu ko maa ajxadu ko du mën a sonal mm-hmm. al yow ma tey bi ci ci dara joo xam ne axastu jël nga ko lillaahi ngir yàlla azza noonu na wa jëla tam àggan loo jël du mën a sonal ci nangu ko beneen riwaaya ne maa ahmadu ko du mën a sant al yow ma tey bi ci bàyyi dara ay bi tarki cheyin ci bàyyi dara loo xam ne axastu bëgg nga ko jël lillaahi ngir yàlla azza noonu na wa jëla tam àggan lépp loo soxla sama alal jëloo ko rek du ma la du ma kontaan ci loolu fa xaal malaaka bi ko am sik teel maalaka sa alal soxla ma fay na mag tum dañ leen dañ leen doon natt na mag tulib tum la wala bu fay na mag tulii tum nattoof nañ leen fay na mag tulii tum nattoof nañ leen faqad radee gërëm na allah wala an ka ci yow wa saxita mere na ala saaxibayka sa ñaari àndoor yi nga xam ne ña ngay layee fere yu bari tere yu bari ba dimbaluñu seen alal kon nag milliardaire nañ jàng ci hadis bi ñan lañu woon démb fan lañ toll tey lan moo leen tee dimbali nit ñi dëkk bu métti ak fere yu bari yow yàlla may ay milliards milliards nga denc xaalis bu dul jeex sa sa sa compte banque gis ñoo mën a dimbale dimbalewu leen ndax fere yu bari xoolaatal sa bopp. muttafaqun alayhi hadis bi hadis bu ñu ko kon yàlla léeg-léeg mu jox la ba pare di la natt léeg-léeg sax du yebal malaaka nit nit ki nga xam lay andi nattu la nga bew mu halak la moom lu ne lay nattoo waxuñ leen ngeen joxe lu leen sànq lu leen alal lu leen yàq seen alal waaye dëgg dëgg nag am na benn gàtt ku amee xurub gàtt benn gàtt yàqul lu ko dara wa naqatu al usharaw gënam goo xam ne nii mooy usharaw bi dembil ayni wa fatu chin ak fata chin gi wa bil madd ak ci madd gi usharaw wa hiya moom alxamilu mooy bu ëmb naqatu usharaw mooy bu ëmb am fukki weer xawla waxam an taja wa fi riwaayatin fana taja maanaam maanaam mooy tawalla méngoo na ni taaja ak juróom mooy toppatoo nag ba mu jur wa naatiju li naqati kal qaabilati comme sage-femme lil marati qaabila mooy kuy toppatoo jigéen mu am doom naatiju li naqati nag mooy kuy toppatoo gëlëm ba mu jur وقولوا هم ولد جرلون هذا كيف هو من بتسجد لامه أي تولى منهم ولادة أجرهم وتبطونك بمجورك دون يفير هو من بمعنى نسجة ونسجة يمتناقة تسجرهم كأنه كنك دعا تبطو جر جام بمام دون فالمولد والناتج والقابلة بمعنى ما يساس فامرك برينيت لكن هذا واي آه، ناتج بي للحيوان بور حيوان لا وذاك بلي ما قابلة لغيره بور لدور حيوان لا xam nga ne wax wax xawloo xam in xataa dog na bii ci moom alxibaalu buum yi alxiyaalu pexe yi xoo moom bil haayi ci haagi al muhammad buñ neenal bi wala bàyyi ak baagal mu wax waxandatu buñ def benn tomb gi alas baabu mooy sababi amatuma pexe daal wax xawloo xam laa ajhadu ko maanaam laa asuq du ma sonal alayka ci yow fi raddi cheyin ci delloo dara taaxusoo boobu da nga ko jël aw tatlubu wala da nga ko sàkku min maali sama alal bu fi riwaayati buxaari bu dee ci nettali buxaari daf ne laa ahmadu ko du ma la sant maa du ma du ma kontaan ci yow daal bilhaayi ci xaagi al muhammadati guñ nee na loolu gi wa maanaa wa mooy laa ahmadu du ma la gërëm bi tarki ci bàyyi dara taxtaaju da nga soxloo éréjin ci moom ñu dagg tarki indi bi cheyin dégg nga kama xaalo comme nañu waxee lay sa nekkul ala tuulil xayaati ci ñàkk gudd fan nata mu ay ala fawaati tuuliha lay sa nekkul ala fawaati tuulil xayaati ci ñàkk gudd fan nata mu dëcc fawaat xadis saabi juróom-ñaareel bi ci bunt bi te mooy xadis juróom-benn fukk juróom-benn xanaa bi yàlla ñu ngi ko jëlee ci abu yàlla sadaat bun awsu sadaat doomu awsu ana de laa ne ko yàlla dina nabi mu yéeseen bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne alkayisu ko am xel man daana mooy ku réglé nafsahu bakkanam wa amila mu jëf li ma baax moo ci ci la nekk ca gannaaw dee borom xel mooy kuy réglé boppam waaw man li ma wax waa ji war naa ko ko wax est ce que li ma def nii war naa ko def est ce que sama xol li ma ci yéene doomu aadama yi est ce que war naa leen ko yéene est-ce que li may jëf baax na est-ce may jullee sell na est-ce que maa ngi naafila est-ce que maa ngi saraxe est-ce que est-ce que ko am xel moom lay def balaa ko yàlla réglé sooy jëflanteeg nit ñi xoolal est-ce que li may def ak ñoom baax na wala déet bul topp sa bakkan bu lay jeene naan yow eh yow kay jàmbaar nga déedéet jël xool ayib yi nga di ko jubbanti mais yu baax yi fàtte ko say ayib ngay xool di ko jubbanti li ma def waa ji lu tax ma def ko li ma wax waa ji lu tax ma wax ko li ma ko yéene lu tax ma yéene ko lima ma jëflante moom lu tax ma ko moom waaye sa yu baax yi fàtte kooku mooy ko am xel man daana mooy ku régle nafsahu bakkanam waa mi la mu jëf li ma baada mooti ngir la nekk ca gannaaw dee maanaam muy def lu baax pour àlaxira pas pour adduna wala aaji su mooy ku gàtt xel man mooy ki nga xam ne at baa topp loola nafsahu bakkanam xawaaha bànnee xam wa naa mu mbébét àlalaa ci yàlla alamaan ku lottu dëgg mooy ko xam ne bànneexu ba kanam la topp di mbébét rek bis mu amee oto ba def nangam ba jël avion yi def nangam dem piscine ba sangu nangam takk soxna nangam dana so man man man danaa takk américain kii ne danaa takk indo kii ne naan hmm? kooku yu gàtt xel dëgg ku ko wax dana gudd fan sax wala li muy mbébét est que dana ko am rawa sunaka Tirmisi wa xaama xadis xadis xasanun gu rafet hmm? Hmm. dégg nga dégg nga kon Tirmisi moo solo xadis bi muy xadis bi xadis bu xasan la kon ku am xel mooy kuy ragle boppam di julli rakk yoo xam ne ni kenn yëgu ko te nettalul ko kenn waaye daf see bëgg àllaaxira jël alalam ñu fekk ku ko soxla lool mu wéet ak moom jox ko alal lu tax mu jox ko alal daf cee bëgg yàlla te du ko nettali kenn bëggul ku ko nettali it di dimbale doomu aadama yi te yàlla tax def te yàlla tax kooku mooy ko am xel waaye ku lottu ku néew doole mooy koo xam ne bakkan bi daf koo toppaloo bànneex rek mooy ne demal fubali nga dem fubali sa bakkan bi nekkal xale yu jigéen yi nga nekk xale yu jigéen di caaxaan rek demal piscine nga nekk piscine rek ay xool nga feccam gaa yi demal seetaan ko fecc ma nga dem ngay dugg ci internet di seetaan yi fecc ak doo dem ci soirée ba nga dem ci soirée ba soirée ba ah ñàkk jom nag boo mën a taxaw ci kaw ci biit nit ñëpp ñu di la gis nga yëngal say loxo naan xësëg xësëg lu ne ngay def naan fecc yu bon yow amatul lenn looy rus rusoo njaalo rusoo sàcc rusoo fen rusoo tria rusoo tappale rusoo dara dara dara ci lu bon ñeme ngaa def lépp ba pare mel ni ku defu dara kookoy ku gàtt xel ba pare saa su nekk ne yaa ngi mbébét su ma amee nangam su ma amee nangam su ma defee nangam su ma defee nangam tirmisi moo solo xadis bi xadis bu rafet la xaala tirmisi tirmisi wax na wa xeyru ak kudur moom a ngi may ci borom xam-xam yi maanaa daana maanaa daana nafsahu mooy xaasabahaa rek la na bakkanam danañ réglé seen bopp danañ àtte seen bopp balaa ñu leen àtte Omar ibnu Xataab ba génn àdduna moom ci loolu la dëkk sax waaye ba muy génn àdduna dafa toog di méttarlu lu tax mu jiite lu tax mu nekk xalifa gars yi di ko taggal naa ngi koy def nga fi lii def nga fa laa def nga fa laa mooy leen cëm nguur ngeen may taggee nguur nguur ngeen may taggee kooku yëgul baax baaxam mu ngi tiit te pourtant yonentu dig na ko aljana hmm? kenn ku ne war nga di régler sa bopp di xool rawatina ku jiite dangaa jiitee ci misaal ñu wax ci li gën a jege muy ab daara ñu ne bi de diwee boromam wala daara jii de diwee yow sa yoon nekku si yaa ngi naan man de lay jàngale maa ngi bokk si xayrukum man ta'allama alquran wa allama loolu nga nekk di wax yaa ngi xool lu baax li ngay def en même temps ci même jamono xooloo ndax am na xale bu xiif ci daara ja waroon a lekk te am na loo ko jox mu lekk te lekk lekk ko wala déet bu daa yàlla yow la koy rek suba xooloo ndax am na xale buñ noggati duma ko te boo taxawoon ni ko war a taxawee kenn du ko duma wala déet yaa ngi comprendre moom ko soo du rek la sa bopp xooloo ne mbooloo mi yëpp kenn ku nekk yàlla daal la taxawal taxawal ko xool ni nga jëflanteeg moom bu dee jàngalekat alquran nga xoolal ndax xale bële dóor nga dóor yu yoon war a déet ndax dañuy wax ne jàngalekat bu sonnee xale ba noppalu waaye moom bu bëggee noppalu xale ba sonn ñaari rek bu fekkee yaa ngi tiim xale bu fooyee nga ne ko hé jàngal sa bëri tegeekul ci moom bu dara wax nga ne aywa jàngal jàngal ci kaw xam nga da nga wax ba bëgg a dee. waaye danañ jàng ne ñu ngeen doo du bëri parce que sa bëri tegeekul si ñoom bougé woo bu fekkee ne da tayal nag wala nga bëgg a noppalu moom nii ngay toog rek toog sa portable di xool say sëg say nangam boo siggee tombé xale bu jàngu da nga jël bi tuuma ba muy bëgg a dee xale danañ jàng waaye danañ dee te nag jàngal nit mooy la nga def ko la ko war a def de yàlla dana la sa diggante moom dóor sax yi am ci lislaam yëpp lislaam def ci aaye dóor buy gaañ dóor buy gaañ moom lislaam aaye na ko te doomu aadama yàlla wa xuliqa al insaanu daifan doomu aadama dafa lot xam naa sax fara karaté kaay jëlee karaté que karaté du dara mooy lu may nga topp point faible doomu ko fa mu daanu xool fi doomu aadama lottee nga xam ko dafa lot moo tax dañoo war a xam ni ñu koy dóoree Hmm? Hmm. kenn du ko dóor yoo xam ne mën na koo rey wala mën na koo gaañ loolu dafa xaraam nga nekk ci jàngale may la nga dóoree noonu te ay wëllu yàlla ñoo la tiim nga di leen di jàngal ñu gën la fuuf ci yàlla pourtant ci yow dañuy jëlee xam-xam waaye yàlla ñoo la gën fuuf ci yàlla nga toroxal leen yàlla mere la moo tax daara ña fa nekk jugee fa torox ba ilaa yawmi diin ak bëri ak parce que boo toppee sa xadar rek ak sa magam daara rek xale boo gis noggatu xale boo gis duma xale boo gis toroxal ngir ne lan ngir yaay yaay magam daara ji wala yaay sëriñ daara bi wala yaay kilifa gi yaay borom daara ji après yàlla fa da laal koo warul laal yàlla jaaree fa xarak la ba ilaa yawmi sa dara du baaxati am na de. waaw kon di teey di régler sa bopp ndax li may def nii war naa koo def walla déet damaa dóor ngir mer wala damaa dóor ngir yar xale bi loolu da nga ko war laaj sa bopp bu dee dangaa dóor ngir mer loo yaakaaree tiyaaba bi yàlla tooñ bi moom bañ la koy jox joxuñ ko ngir nga mer di ko dóor dañ la ko jox ngir nga yar ko soo ko dóoree pour yar ko du mer loolu daa koo nañ mais bu dee da koo dóor ngir mer tooñ nga ko tooñ ngay waajuram tooñ nga këla ko dénk Hmm? kon ñi jiite dañuy réglé seen bopp jiite yombut de wallaay ku yor njaboot jiite leen muy daara muy lu mu mën a doon te mbébétoo bis bàyyi ko waxuma bàyyi ko ndax coono àddina de bàyyi ko ndax ragal ëllëg boo taxawee sa kanam borom yow matagoo njiit boo jiitee fekk na ah man de dëgg yàlla ah affaire bi liggéey la de koom-koom de man de wut àdduna matuma njiit da ngay commerce ci lislaam moo tax nit war na di régler boppam hadis bi topp ana islam mari bokk na ci li rafet islaam ni du ko amul njëriñ bokk na ci fugli yàlla loolu amul nga bàyyi mbiri jàmbur yi sa yoon nekkul si waaye yow diw mbiram ma fu mu mujj eh, diw di dañ ko demee sa àll bëri wax dëgg yàlla te bandee ko jàpp dootu mu bëgg a dee eh, yooyu amul lu mel xam ne ñaar la amal njëriñ looy jëlee xaalis boo xam ne ni dañ nga ci liggéey sa àdduna wala tiyaabu pour alaxira kon loolu bu ci nekk xadis xadis xas mu mu refere waaw su nag a tirmisi tirmisi waxee roog budul moom xadis bu mujj mooy hadis juróom-ñeenteel bi ñu ngi ko jëlee ci Omar yaakaar naa bii firoo ne ko ci Abu Nawawi de waaw attaasi hadis juróom-ñeenteel bi te mooy hadisu juróom-benn fukk ak juróom-ñett moo mujj ci bunt bi. ana Omar jëlee nañ ci Omar de yàlla na gërëm allah yàlla na ci moom an nabi mu jëlee ci yonent bi salla yàlla doolu xew allah yàlla alayhi moom wasalaam doolu ko musal xaala wax na yonentu nee na laa yusalu duñ laaj arrajulu góor fii ma dara ba ci lan la dóor imraatuhoo jabaram maanaam loolu bugg ci lu sa yoon nekkul parce que nit ak soxnaam du lépp la mën a wax du lépp lu mu joteeg soxnaam rek mën na ko leeralal li ñu da dèjà am loo xam ne rus na ko rus na ko nettali moom xam na ko waaye mënu koo mënu ubbi gémmiñam di ko wax kon nag bu nit joteeg soxnaam bul na ko lu xew lu tax nga def ko lii ndax li xew moom mën naa mun lu ko waaye tamit moom laa defoon sama benn maam pourtant man waxuma ko sa waaye diw na nga def mooy du ma la ko wax de <laughs> mooy du ma la ko wax de <laughs> ma ne ko jox nga ma dara waaw magam laaj noo def nee na <laughs> nee na du ma ko wax dégg bu la lee yonent bi ne ji góor duñ ko laaj ci lan la dóor soxnaam maanaam dañoo bëgg wax ne secret jotee diggante jëkkër ak jabar bu fa nekk di laaj mu demee parce que mu lépp mënuñ la koo leeralal am na loo xam ne mënuñ ko wax wala am na loo xam ne boo ko waxee li muy yàq sax mu ëpp li muy defar danga koy noppee ba laa nga xam li nga xam mais keneen du mën a xam amaa dóor jigéen nag dafa xaram allahuma lu mooy nga jaar ci étape yi nga xam ne nii lislaam jaaroo na fa ba pare benn bi mooy waar ko soo amee sa soxna mu dëng waar ko waxtaanal ak moom boo waxtaanee ba sonn déggut gàddaay ko gàddaay ñaari xaaj la benn bi mooy bokkal ak moom lal te bul séq ak moom dara bu loolu mënu ci moom dara nga sori lal ba bul bokk sax moom lal waaye bul séq ak moom dara bu téye ba boo ko mënee beru ci néeg nga def soo beroo sa soxna nag ba sonn faalewul la alxuraan ne wadribuhunna ngeen dóor leen waaye dóor yi bu mu am lékkit bu mu gaañ dóor yi yar la mais dóor yooyu sax ci kaw muy jariñ mais bu fekkee dóor yi sax dafay gën a yàq dafay mujj te ci jamono ji gis naa ne dóor sax jariñutul dara moo tax bu kenn dóor nga da ngay dóor day yàq sa der danañ ci wax lu ñu la war wax dëkkal la fu ñu la war a dëkkaloo te du jariñ moom bu dee dóor yi yow wóor na ne soxna si boo ko dóoree dana jubbantiku mën nga ko dóor te bu ko gaañ hmm? waaye tànk loolu sësut lislaam aaye na dóor yonentu nag moom mosu dóor soxna mosu dóor mosu dóor kenn sax moom moom mosu dóor kenn moom daal bu fayoo daal dañoo tooñ yàlla bu fayu su ko defee bunt bi li ngi ci jàngee rek mooy bul dugg ci mbiru doomu aadama yi di luñutu di gëstu waaw di wag bi moom luñ jotee teew soo nekku ci xamoo ci dara waaye lii moom lan moo fi xew ba lii xew xamoo xamoo nit ki moom moo mën a xam jàngoroy boppam moo tax lislaam ci lislaam booy takk jabar te ngay jaam sa sang moo lay may ndigal nga takk jabar bu la sa sang mayu ndigal doo takk jabar waaye booy fase jaam buy fase du si laaj ndigal sangam moom moo gën a xam li xew sangam kenn ku nekk yaa gën a xam sa mattilal rawaasoo nag abu daawud abu daawud waxee waa kulu moom هذا إن يريد الإسلام واستعنت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته